njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew eh, jeex na fi wala lokation moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay eh, jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa apartement appartement. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk mi yow mi nga xamante ni yaa may yor li nga xamante ni moo di oto. di dawal kenn ku ci nekk xam na ni nit ki buy dawal bu sonal incha allahu pan du ko sanal jëlal lii ma lay bëgg a wax incha allah nga def ko suñu borom dina la musal ci oto buy pan te itam ci kàttanu suñu borom di nga bëri oto da ngay bind xunóot boo ko bindee mbokk mi nga jàmb ko ba mu bàyyi ba nekk saafara nga jël loolu yokk ci ndox tuuti def ko ci radiateuru oto bi bu soobee suñu borom. te itam bu fekkee mën nga ko sax ñetti fan binda ko def ko noonu def ko ci radiateur bi bu soobee suñu borom panne du la sonal te di nga bëri oto incha allah jël ko te partagé ko mbokk mi.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 immobilier bu ko faits, Yen, 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay kër ce